jours rek ma wax te li may wax ni matagul sa cinq jours ou six jours koo xam ne ñëkkoon nañu am problème ma jéggal ko baal ñu ànd si jàmm ak yërmande ak xol bu rafet ma dajeeg moom New York ma dajeeg nii moom New York ma ne ko sa waay bu toog fii di liggéey ñoon fekk ma Atlanta moo la yoon nga liggéey li yàlla di def mu ñëw suma kër ba mu ñëwee sama kër nekk na fa presque ay deux mois et quelque ba am foo xam ne fa la dem dëkk ma dem dëkk foofu noonu barki démb ma jël ko ànd ak moom ñeem si benn restaurant ma yónnee ko message ne ko ah fayalal sa bopp parce que bëgguma xale yi jigéen maa fayal xale yi jigéen yi ah, bëgguma xale yi bëgguma xale yi jigéen yi yab la mu woo jabar mu mu gedd mer dem woo sama jabar ne ko girifañ si restaurant bi ak ay kel sama jabar fekk ma si restaurant bi ak dal nag ak dal te ki ma ko def sama kër la nekkoon de ma jox ko oto tamit teg si jox ko oto mu yàq ko oto bi ma joxaat ko oto mu accidenté oto bi te li may wax nii trois jours lay matagum si si si li xew nii ba woo sama jabar ne xale ji euh, girifañ xale jigéen ndax mer na mu fekk ni sama jabar fekk ma foofu chaque jour ma yaa ngi dimbali ay doomi xaj yoo xam ne dañ laa jege bu leen gis nit mukk ngeen ne ndey saanu wala kii daa bëri ree daa bëri jàmm fekk xol ba la sa nekk xolu doomi xaram la xolu doomi xaram heure bu musaan dem seeti jabaram sax sama oto laa koy jox sama oto su taxawee ne daa jënd oto day fen su tax daa fay oto day fen te lii yëpp waxoon nañ ma ko nee ma Griff nit ki loo ko sang sang sang sang sang taxul mu set ma jël sama place jox ko ne ko liggéeyal di ko fay chaque semaine trois cent cinquante dollars chaque semaine naa ko doon fay. xoolal yenn tas famille xoolal yenn tas sëy ay nit ñëw ne ma Griff kii loo ko sang sang taxul mu set yaa ngi koy jàppale waaye du jàppale boppam. ndaxte moom mooy sama number one maa am sama place bu dem si ménageur bi ne ko Griff daa bëgg a jaay xaaju place bi bàyyi ma nga profité nangu ko xoola yi mel noonu xoola yàq der yooyu xoola wax yu ñaaw yooyu nga jël nit di am si moom xol bu rafet xar bu yërmande muy la jàmm wala yërmande ah maa ngi vacance si bato bi ak sama jabar mais yàlla na yàlla doon sutura may ñu jàmm yokk ñu dañu yàlla may suñu xol ko ñu suñu xol ñu am jàmm ak salaam koy dimbali na doon sa mbokk na doon sa jabar na doon sa yaay na doon sa papa parce que nit ñi soo leen dimbalee na ñaan kii ndeyam liggéeyul parce que yaa leen dimbali that's it